day xaaral na liggéey ba si kanam champion la na liggéey ba si kanam champion la na liggéey ba si kanam rabu dëkk bi moo xewle rabu dëkk bi ay borom dëkk bi lay yow li mooy rabu dëkk bi da koy jël ni rek pour l'instant moo loo leen soxla moodu wiri wiri jaari ndaar yi mooy lamb billahi wallahi taala Ama Baldé borom àdduna la comprendre na bàyyi gay ba ñoo jël mbër mi ñu mënoo lañ soxla ñu soxla ñu Gris Bordeaux mënoo lañ soxla

ñu waaw non dafa am ñu ko jox am na loo xam ne léegi c'est comme pas faire comme nous sommes des responsables dañuy jéem a wax ak booy ñu jéem leen a canaliser ba nga xam ne coow du am. loolu sa rôle loolu mooy sama doxal loolu loolu laay dox. eh ñu ma jaar naa la ah maa ngi noonu de ndeysaan ndax gars yi dañoo bëgg oto bi dugg ba ci biir mais naar gars yi bëgguñu force de l'ordre yi dañoo bëgg ama wàcc dox ndànk ñëw dugg ndax bëgguñu ful bëgguñu ful bi jege bunt bi. makan est-ce nekkul looloo ëpp jàmm sax. looloo ëpp jàmm. ndeysaan looloo ëpp jàmm. waaye makan yaakaar naa waa bi dañoo namm ama bal. dañoo namm ama. ndax moom yàlla min bi la gars di def concurrence moo tax. tey li waa Pikine tamit dañuy wane Ama ci lamb la bokk. dañoo bëgg a wane Ama ci lamb la bokk. démb wane ne waa Diamaguène wane a Siteu ci lamb la bokk. ndeysaan moo tax tey waa Pikine bëgg a wane ne Ama ci a la bokk. ndeysaan waaye man kat damaa gis yàgg ñu ngi jël seen combat bu passé rek ñu ngi doon Ama Baldé. nga yaakaar ni combat ma. combat bu bëgg a bëgg ko léegi wala dama fekk Sénégal. ndeysaan damay def ba Touba Mbeki tëdd. maalo gi noonu ci kaw oto bi naan frère de Jules Baldé maalo gi noonu waaye nga Ama Baldé ne moom

gars yi indi nañ Ama Baldé barrière yi pour soxla jàmm. Ama ngi ñëw nar. mën dem fële ca deux heures Ama ngi noonu xoolal ma Ama mi ngi noonu. Ama Balde Pël baa ngi noonu ci biir géej Ama ngi noonu def def laafa. Ama laafa la def. Maodo ngi noonu Malo Seereer ak paa bi. Seko ba ngi noonu. Ama dafa yàgg. wallaahi loolu lépp fekk naa la ko. gis combat bu am yaa ko yóbbu. wallaahi loolu dëgg la moo tax te jigéen di woo ko. dëgg la ah. Maodo Diagne la kooku Serigne kooku mooy Serigne Seyna sama xarit bi Maodo Diagne la grand bi tekse Maodo Diagne ay bés sama xarit bi dama xam waa te li bés xam nga li may wax bilaay dafa yàgg ay Maodo Diagne gis ngeen ko dama yàgg maag moom te dama doon suuf étage bi yow dafa yàgg étage bi bëgg a daaru sama kaw daaru sa kaw bilaay yaa fu yóbbu woon yàlla bañ de dama laa xam yàlla bañ waaye dama la xam Maodo Diagne Jacob Baldé Jacob a ngi noonu adversaire de ndigal Amaye sëriñ ngay def ah. baaxul mooy wax ak moom mooy mën a seeram.

Ama Baldé ngi noonu di dem. bu leen déborder wala dégg leen nga bu leen déborder. bu leen déborder.

Ama Baldé Siteu mi ngi noonu ànd ak Jacob Baldé ak Malo Seras. Tambul bu mu dem de bu mu dem tey léegi bu mu dem de. Ama Baldé di ànd ak sa Pape Balde Malo Seras ak nga xam ne moom mooy sa fant waaye bakat nga grand maa ngi lay nuyu grand maa ngi lay nuyu ñu koy waar nee naa ko moo doon bu may gis ci sa place yorul bal baax moo doon bal baax yorul bal baax waaye xale bi am am jilaan la facile de l'équipe non xara dina leen lijjanti ñi moom ñi moom maa leen ñi moom maa leen dina leen lijjanti ba ko dugal sa biir ñi ngay gis ci kanam yëpp bu yëru brassard bu yëru brassard bu mu ah mais kon nañ dugg kii bu dugg dama dugg. waaw waaw waaw waaw Sadaran ko? Mun kay mun maa yoroon périr batir la jam. Gara gara. Gara day day day day day day day day day day day day day day Babacar maa ko moom. Babacar moo ko yor. may ko tuuti rek non non non. waaw kenn sëñ Fallou sëñ Fallou waaye. ah maa ngi sëñ Fallou nuyu naa la. mayel ma ko lumière. mais chef chef Babacar mi ngi ñëw billaay bu ñëwee mu fekk ci biir. waaw yow at sa barrage bi man. sa mbos alamu ma. Ama Baldé maala fela dugg na ñëw na maala dugg dugg dugg ama ngi noonu di dugg say ama ngi noonu di dugg ba ngay wax ak cuub ñu ngi noonu moom maala mu ngay dóorante cuub Ama Baldé ama ngi noonu cuun cuun mbaam nga jàmm te danoo gis Ama Baldé di dóorante ak yow ay procès. déedéet déedéet. da lay dóor kay yow la dóor yow mii la dóor.